مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص صدق الله العظيم tabaarakallaahu jërëjëf Muhammad Jang ci aayaat yu am solo yi ñu jàngal ak njàng mu rafet mi ngi ko jàngee yal na yàlla wàccee barkeeb alquran ci sa kaw ndaw nga yal na la yàlla def mag tabaarakallaahu wàccee barke bi ci say waajur yi nga xam ne dañoo gedd njàng yépp tànn alquran mi gën ci lu ñuy jàng wàccee ko ci sëriñ daara bi nga xam ne moo sonnee ayaat yi ba mu nekk ci sa dënn yàlla mën na ko am na ko sañ na ko yàlla na ko yàlla def mu mel ni ayaat yim doon jàng ma nga ca suuratu ibrahim suñu borom bu tedd bi di ci wax koo xam ne gëmul yàlla pas-pasam baaxut lu baax lu mën a def ci àdduna duma ko dencal payoor ga ci àllaaxira maa ngi ko koy fayee fii ci àdduna rek te na ma ko koy fayee sax moom xamu ko waaye daal lii tax nit ki mën a am kont bu wér ci yàlla ba boo ëllëgee nga mën a taxaw mu fay la mooy pas-pas pas-pas mooy ubbi kontu yàlla yi ci àllaaxira pas-pas bu baax sëñ Moussa Ka dafa daan wax ne bala ngaa xam ne pas-pas a baax ngay ñaw fàttee fas wëñ ga loo dugal dugal puso bi di génnee dugal di génnee boo xëccee rek mu topp la waaye nag su fekkee façon nga cet wëñ nga ba mu dëgër boo ñëwee rek mu taxaw liggéeyam yàlla bi tamit ci àllaaxira noonu la mel képp ku gëmul yàlla lu mën a def ci lu baax fii la ko ko yàllay faye fay ga nag mën naa nekk ngelaw lu neex lu koy hupp ngelaw lii kenn dafa am njëgam ah oxygène bi ngay noyyi demal ba ñàkk ko dem hôpital yi nga xel liñ koy jaaye te du tax mu mën koo remplacer jàmm ji la yàlla may mën a lekk mën a naan boo diisee mën koo sippi yooyu yëpp ay xéewal la yu yàlla yi fayee def lu baax te seen pas-pas baaxut waaye nag bu sa pas-pas baaxee loo def ci lu baax da nga jot payoor ga fii bu yowmal xiyaamee timit yàlla jox la payoor ga moo tax kon téere yooyu jàng rek li muy njëkk a jàngale mooy fexe ba wéral pas-pas waaw pas-pas bu fekkee baaxul mook tabax bu amul fondation ñooyam booy tabax tey sonn si bëgg koo def R plus 2 ak 3 fondation ba baaxul lépp ay daanu waaye bu fondation ba xasee baax loo ca teg attan na ko kon julli aj màkka jàngal quran baaxee waajur lépp bu àndut ak pas-pas bu wér lalal dalal ko rek zéro la wa qaddimna ila ma amilu min amalin fa jaalnaahu habaan mansura moom lay wax si ne masalu la si ne meloo gaay nga xam ne kafaroo dañoo weddi yàlla masalu lazina melaw gaa yi nga xam ne kafaroo weddi birab bi rabbihim seen borom amaluhum seen jëf ya karamadin dafa mel ni ki dóom istaddat boobu dina bihi ca dóom ba riyaahu ngelaw yi fii yawmin ci bis asifin bu cale cale weeru laa yaqdiruna ni ñàkkee kartan ci mën a at ci mën a ci mën a ci mën a attan mimma kasaboo ca lañ fàggu ala shay'in ci dara laa yàq yaqdiruna xattanuñ mimmaa yakasaboo ci liñ fàggu alaa shay'in ci dara dalika loolu la moom ak dalaalu mooy ak sànkute albaidu gay aji sori dëgg mu ne ku jëf-jëf ju baax te sa pas-pas baaxut mi ngi mel ni bisab caniweer ànd ak tàngoor ngelaw la rit nga yore dóom ne sama dóom bii laa bëgg a sécuriser du sotti de kenn mënu ko teree naaw te bu naawee kenn mënu koo dajale sama doom bi law li naawaloon laa bëgg a dajale soo ko waxee ñu ne kii dof la yow moomu tamit ñàkk ñàkk gëm yàlla di def def du baax ci jëf-jëf ju baax ji bu yowmal xiyaame noonu ngay ñàkkee kartan ci mën a dajale lu baax la nga doon def amul compte ku fi jël di liggéey di verse ci numéro compte yu baaxul bu dara desul nga bëgg a lu sotti te àdduna du dara lu dul kër ak liggéey rekk la barsaq kër ak nigandiku rekk la àllaaxira kër ak fayeeku rekk la ñetti yi rekk la yow nag fi ñu war a fayeekoo su fekkee ne amoo foon liggéey bu baax doo mën a fayeeku kon gaa yu gëmul yàlla yi lu ñu leen defal ci lu baax jël leen yàlla na leen ko fayee fii ci àdduna bu ñu leen gaseli forage jël leen ñu ngi koy def bu ñu tabax ay centre jullit ñoo ko waroon a def sax waaye bu ñu yaafusee ba defuñu ko ñu ngi koy defal nañ jël bu ñu tabaxee ay hôpitaux ji ci faj jullit ñi jël leen bu ñu ñëwee di leen defaral ay yoon bul nekk naan kee ko defar gëmut yàlla lu ciy sa yoon comme yow mi gëm yàlla mënoo ko jëlal yooyu yëpp jël ko waaye noonu ñoom yàlla nee na am am ak naa ñoom affaire fii ci àdduna mais àllaaxira awma ñoom affaire tey sax gis nga ko daanaka ñooñu nga xam ne gëmuñu yàlla liñ man ci wàllu social ñiy jullit gëm yàlla mënuñu ko te wax dëgg yàlla su fekkoon ne déggoon nañ suñu diine ji ñun ñoo waroon na mën a ñoo waroon na raw ñëpp ci wàllu social waaw ñun ñu ci ñun lañ waroon ñëw di sàkku si ndimbal waaye bu ñu yaafusee jëm bay sàkku ndimbal ki ñeneen ñu dul ñun nga xam ne ay dal nañu te loolu moo ñu dal moo bëri moo bëri kon loolu la yàlla wax buñ lay tabaxal jumaa sax jullil waxee boo ñoo ko tabax gëmuñ yàlla yoonu yàlla nekkul ci te julli leen yàlla dana leen yéen yéen seen julli yàlla dana ko nangu ñoom yàlla dana leen fay liñ def fii ci àdduna mais duñ leen ko fay àllaaxira alam tara xanaa yëggul sa xam ne ana laaha naka yàlla xalaqa bind na samaawaati juróom-ñaari asamaani wal arda ak juróom-ñaari suuf bil xaq ci dëgg waxut ko ci neen de afa xasibtumu annama xalaqnaakum abathan wa annakumu ilayna la turjaun amut but bi nu ma dara ngir fo suñ bëggoon fo jël malaaka yi ñu ñuy foxal law aradna an attaxida lahwan la taxas naahu min la dunnaa man yàlla dara fa dara ñorul ma ci kon nag lépp ci dëgg laa ko teg moo tax mu ne alam tara xanaa xéggul sa xam ne anna laaha naka yàlla xalaqa bind na samaawaati juróom-ñaari asamaan yi wala ardaak juróom-ñaari suufi bil xaq ci dëgg in yasha bu ko neexee yudhibkum mu faagaagal leen wa yati mu indi bi xalqin ci bind jadiidin gu bees wa ma zalika déet loolu bi asisin di lu jafe alallaahi ci yàlla def na ko di mu ne su ma neexoon man yàlla ma jëlee leen fii yéen ñëpp indi fi beneen génération bu bees ñun ñii tey li ëpp ki ñun suñ maam ya dee nañ suñ bàyyi leen xuutu woon ñu bari dee nañ ñun ñu leen fi xuutu yàgg-yàgg dañuy dem tamit dee suñuy doom nekk fi bu yàggee ñi dee sët ya nekk fa lii mu wax moom def na ko ba pare sax génération yi jiitu woon yëpp dee nañ yow bi nga dund nga xam boo fi bàyyee ko tamit ñeneen ñëw wutu la rek waaw ñi fi ne suuf yi fi nekkoon tabax yi fi ne woon yëpp ñoo ko doon boo liggéey da ngay dee ñooñu doon ko ñeneen doon ko rek kon loolu moom moom loolu moo waxoon ne bu ma neexoon ma def ko sa na ko def def na ko ba pare léegi mi ngi wax nag bu ñëpp dee ba dugg ci seen biir bàmmeel yi nit ñi war a dekki te seen carnet jëf ya wuyu ji seen borom ñëpp taxaw su ko defee nag ñi war a régler dossier yi foofa ñu ñàkkoon fayda di topp lu toppuwut dañuy taxaw di joxar ba ñañ doon topp te gindiwuñ leen jëmee leen ci yoonu yàlla ci seen bopp dong lañ leen gindeen ñu mujj di réccu ne yow yàlla tee nga ñoo dimbali ngi delluwaat àdduna ba joxar bi nekk sama gaa yi ndeke mënuñ tos yàlla ne loolu passé na de yéen ñaar ñëpp safara yow yaa muuse woon bay naxe yow yaa ñàkkoon fayda nekk ab dof bañ nax la yéen ñaar ñëpp safara ngeen jëm loolu lay wax si nii moo tax mu ne wa bërësoo feeñ nañ ñoom jaami yàlla yi dekki baaxee ko ci seen biir bàmmeel yi lillaahi ngir huyu ji suñ borom jamian mbir muy mboole seen fa qaala wax addoafaaw way lompañ ña doon toppe li la fi ñeel ña nga xam ne istakbaroo dañoo rëy lu woon bañ leen di topp ñu naan innaa naka ñun ñu lompañ ñaay wax ku naan nekkoon nañ tabaan di woy topp làkkum ñeexen leen fahal antum ndax yéen mu muxnuuna man ngeen a jañal xanaa walis ñu min azabillahi ci mbugalam yàlla mi min sayin ci dara xaaloo ñañ doon topp ne la wax dee ne su fekk ne gindi woon nañu laaxu yàlla la day naa kom kon ñu gindi leen de waaye ñun de yàllaa ñu gind bañ leen mën a gindi sawaun aji xemoo la alay naa ci ñun aji seex naa ndax maanaam saalig nañ am sabar naa wala muñ nañ li wér taxóor daal maa la naa déet di ñu ñeexal min maxisin ci benn palaasu njuuy mënu ñoo njuuy mbugal mbugalam yàlla mi bu yowmal qiyaama ne yàlla na yéen ñëpp bokk leen dugg safara yàlla dugal leen fa juróomi téeméeri xat ci xati àllaaxira ya ci bisam ya ñi koy saalik buñ saaligee saalik sama sama borom faalewut leen ñu ne kon nañ muñ ñi munaat juróomi téeméeri xat ci xati àllaaxira ya yàlla faalewut leen ñu ne kon nag Malik yow mii di bëkk néegab xala maanaam di bëkk néegam safara ray ñu yaa Maliku li yaqdi alayna rabbuka waaye nañu sa borom ray nañ dee kon ñun saalik nañ faalihut ñu ñi muñ faalihut ñu liñ doon muñ te faalihut leen ñi saalik moom moom aji seex naa am sabar naa la naa min maxis ñu ne kon nag yaa Maliku li yaqdi alayna rabbuka fañ ko waxee ak fi leen i Malik di tontoo ci ndëgalal suñu borom juróom-ñetti fukki xat la ci lam leen tontu lépp mooy innakum maakisuun mooy yéen de xaw ma ñan mais fii ngeen di sax du ngeen dee du ngeen dund dund bu leen di xamal jariñ parce que dee mi doon raye dee na te waxoon naa la ko ci waxtaan yi passé bu waa aljaana duggee aljaana waa safara dugg safara ci lañuy ñuy door a indi dee ci melow am xar rendi ko ci diggante safara ak aljaana ne yéen waa aljaana ñu ne la bayka mu ne nekk leen ci bànneex ak xéewal dootu leen deexati mukk dee mi doon rey ngi nii ñi door a rey yéen waa safara yéen nekk leen ci mbugal ak coono dootu leen deexati mukk dee mi doon reyee ngi nii ñii dañ ñuy door a rey dee nag feeg deexagut ku dund na nga dee te dee xam na fu la ju day ni balaa dee ñëpp a dee bu ñëpp demee ba dee ci lay door ci lay dee door di dee foofu nag bu fa xasee nekk nag li yàq dee alay naa rabbuka xamatu fa njariñ am na beneen laay joo xam ne sax leneen tontu xaa laxsahu fiha wala tukallimuuni ca suratu muminuuna xaa laxsahu fiha wala tukallimuuni ni ñuy dàqee xaj mooy ixsa maanaam xaj bi dégg la nga ne ko imo gars yi nekk ba mu ne imo waay dugg leen ci biir imo te bañ koy wax ak fa leen yàlla tontu juróom-ñetti fukki at te kat xati àllaaxira yi bis ya 360 suur la amul 350 cent 360 lay doon waaye bisi àllaaxira ya bis bu ne junne junne fan la wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udduna kon fan bu ne junne xat junne eh, junne xat ba mat 360 ndaw lu yàgg xam nga loolu yàgg na de loolu mooy xati àllaaxira xati xati àdduna yi 365 te xati àllaaxira yi 360 waaye fan bu nekk junne xat lay diire lu lay doon ñu tontu leen ne leen moom seen biir jeex na bu ngeen xeeboo dugg safara seen biir jeex na ñooñu yàlla jeexal na ca kon ku ñàkk fayda ba topp ku lay nax bu ëllëgee yàkki la doon nax yépp safara fe ngeen di mujj moom la yàlla wax nii mu leer nañ kuy topp toppal koo xam ne dafa lay gindi jëmee la ci yàlla di la digal lu baax jiitu ca di la teral lu bon bàyyi ko te maanaam te te te doo ko ci gis bu lay digal lu baax te defu ko sax yow boo ko defee boo ëllëgee moom mu torox yow nga mucc bu lay teree lu bon te bàyyiwut ko yow nga bàyyi ko boo lëggee yow nga mucci moom mu torox kenn mënu ci dara waaye nag topp koo xam ne ci boppam dong la la jëmee gindiwul la ci dara soo lëggee yaa ak moom yëpp safara alquran ko wax léegi nag gannaaw ba mu paree ca loola muy wax tamit iblis declaration bi muy mujj a def xam nga iblis a ngi nii di di di di xiirtal nit ñi rek di leen réeral di di di xiirtal nit ñi rek moom liggéeyam dafa am njaboot njaboot la am ak njaboot gu koy jàppale ci réeral nit ñi am na ci njaboot goo xam ne yàq diggante bu baax rek mooy liggéeyam kii njaboot goo xam ne xirtal la ngay lekk xalli jàmbur yi mooy liggéeyam kii xirtal la ngay njaalo kii xirtal la ngay sàcc kii xirtal la nga bañ sa mbokk kii xirtal la ngay wax nit ñi lu bon moom nag kaaru bëccëg la am iblis bëccëg lay liggéey doomam yi njabootam gi ñooy liggéey guddi léegi nag buñ demee nag mu nekk nax nit ñi te waxoon na ko yàlla yaa démonté sama garaat ngir aadama danaa danaa danaa sànq sëtam yi ak njabootam gi lu dul illaa ibadaka minhumul muxlasin lu dul ñoom ñëpp naa leen yàq la uxwiyannahum ajmain fee mu ne summa la aatiyannahum min bayni aydihim wa min xalfihim wa an aymanihim wa an shamailihim wala tajidu aktharahum shakirin buñ demee nag ba taxaw ca kanam yàlla nag nga xam ne foofu bisab fayeeku la iblis taxaw tàccu ne naxoo mbaay hey yéen nit ñi maa leen doon nax naxoo mbaay maa leen doon sàccloo ngeen i sàcc perte ngeen maa leen doon xirtal ci njaalo ngeen i njaalo perte ngeen leen doon lekk xal di jàmbur yi perte ngeen yéen a doon bañ seen bokk yi perte ngeen yéen a doon nekk ci gara place yi yàq deru nit ñi naxoo mbaay maa ngi yéen yépp tey safara lañ jëm mën na lu ma leen tus déclaration yu iblis boobu muy def ci kanam suñ borom ci kanam jaam yi lay wax si nii gannaar bi mu waxee déclaré nit ña seen seen biir parce que wax na seen nit ñi seen diggante seen moromam nit ñi leen nax ba ba ba ba bañ topp lu topp hëllëg ngi dem safara mu wax nag ña toppoon iblis bu hëllëgee te waxoon naa la alquran yëpp topp ci ne juróom juróom-benn yëpp juróom yëpp perte nañ juróom-benneel ba rek mooy ña topp sayduna muhammad ñoo ñuy mucc waaw waaw qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhbibkumullah mais bu ko mayee juróom-benni topp ya ma la waxoon yëpp keroog ba ñu hubbi tafsir ba yëpp perte nañ yooyu yëpp waxoon nañ ko keroog ba ñu hubbi tafsir bi moo tax mu ne waqaala wax na saytaanu saytaane kañ lama qudiya ba xateef al amru mbir mi ci diggante jaam yi lu mu wax mu ne inna laaha naka yàlla waadakum dafa leen a wax dal xaqi dëhal goo xam ne gu dëggu la bu ko defee ngeen bañ koo topp mu xasaf ko wa waadtukum ma dëhal leen dëhal goo xam ne dëhal ak neen la mu xasaf ko waaye lu ci mën a xam fa axlaftukum man dee sooyal naa leen wa maa kaana nekkul lii di ma ñeel alaykum ci yéen min sultaanin ci wenn lay man forcé wu leen pour ngeen topp ma illaa an daxawtukum lu dul xooxoon naa leen fastajabtum ngeen nangoo huyu lii ñeexal ma falaa taluumoo nii bu leen ma yedd wa luumoo yedd leen anfusakum seen bopp maa anaa déet man bi musrixikum ma man leen a xettali ci mbugalam yàlla mi wa maa an wa maa antum déet yéen bi musrixiya ngeen man maa xettali inni naka man sax la gën a gàtt kafartu weddinaa bi maa asraktumuni ci la ngeen ma doon bokkaale min qablu ci njëkk kenn musuma bokkaale ina zaalimi naka tooñkat yi lahum dal na seen kaw azabun mbugal alimun may borom ak méttital billahi iblisa bon xoolal xoolal li mu wax rek ixtibaag la aaya ji boo jàngee balaaxa moom lañ tuddee ixtibaag boo seetee jumla ju njëkk ji am na lu jumlaay ñaareel ji amut jumlaay ñaareel ji am na lu jumla ju njëkk ji amut laa waadakum waadal xaq jumla ju njëkk ji am na ko wa waatukum waadal baatili nag amu ko jumlaay ñaareel ja mais fa axlaftukum moom am na ci fii waaye fale tamit maanaam mu dëggal leen ak ak ak ak ak dëxalam amut ca loolu lañu tuddee ci balaaxa ixtibaag dafa dafa dafa roofalaante ñaari jumla yi su ko defee koob iblis ngoog lii la déclaré kon nag ku heboo moom génn ci iblis léegi balaa génn ci yow ku ko defut bu ëllëgee moom fa muy mujj ak ñun yàlla wax na ko ci alxuraan te yàlla moom xam du toxu mukk lu wax dana ko def kon mi ngi nii ku heboo jàmbu iblis nelaw yi yëpp bañ a xeewu yëpp iblis la nelaw neex sedd bi ngay batar ni ko rek su ko defee mu lay sàngaat rek waaye boo bëggee xeexal ak moom rek sànni mbàjj ga fële dem suuru ndox mu sedd mi bu laajee nga sangu bu laajee nga jàpp sóoru lëndëm gi téye sa torsu bi dem ca jàkka ya di julli ji boo ñëwee nekk sa alxuraan ba mu naaj nga takk sa dàll yi dem liggéeyi bul may ci sa waxtu wu cher wi fenn ci iblis fu muy xamee occasion ci yow moom nag mi ngi lay gën a mën a yàqale ci boo nekkee ci julli boo nekkee julli rek mu commencé jax-jaxal luqumaan luqumaanul xakim ni suñ mbokkam nit ku ñuul la ku baax yàlla tuddee na ko saar dafa daan wax ne man topp naa ñeenti junnee yonantu ñeenti junnee yonantu yooyu yëpp jëlee naa ki ñoom juróom-ñetti kàddu ñoom ñëpp ñoo ma jàngalte te ñu ne ma boo nekkatee ci julli wattul sa xol bi boo ko wattuwul rek iblis foxee ko moo tax gis nga booy noot boo nekkee di julli rek iblis commencé jax-jaxal fàtte nga waa ji weccat wam la yoreloon fàtte nga diw lam la waxoon fàtte nga nangam ak nangam ci yooyu lay dugg ba yow da nga julli def nga def nga action yépp mais daal amoo ci benn bànneex ci julli gi mu ne ko ñaareel bi ñoom ñëpp ma bokk jàngal boo duggatee ci néegab jàmbur wattul sa bët yi ñu entré ci néegab jàmbur ngay xool bay xool ron mu ne ma mu ne ma timit ñoom ñetti ñoom juróom-ñetti ñoom ñeenti junne yëpp jàngal nañ ma ne boo nekkatee ci mbooloo wattul sa làmmiñ wi rawatina léegi bi nga xam ne enregistré moom dafa xew nekk ci mbooloo rek di wax loo war ta wax rek taataan rek sa sa soppeeb taya nga fa enregistré la denc dossier bi di la ca santas boo demee ba lam bëgg mën noo ko mu jigi publier ko rek ci internet bi koy yàq sa der bi te ba nga koy wax ka koy def mën naa am sax yéen a bokk yéen a bokk boolu añ bi ci loolu lépp day am te léegi nit ñu bari ku ci ànd ak yow mi ngi seet fu mu la mën a santaase mu ngi seet fu mu mën a fu mu mën a denc sa dossier ba nga xam ne yàqoo gi du yomb daal loolu lépp nag mu ne ko boo nekkatee ci mbooloo watul sa làmmiñ bi mu ne ko foo tollu del fàttaliku ñaar te foo tollu del fàtte ñaar mu ne ko foo tollu del fàttaliku yàlla foo tollu del fàttaliku dee ñaar ñii kenn du leen a fàtte nit ku nekk war nay fexe bët bu set mu samp dee ci kanamam heure bu nekk ngay fàttaliku yàlla fàtte yépp bi ci gën a xées mooy fatte yàlla mu ne ko na del fàtte ñaar lépp loo xamee ne nii defal nga ko nit ci lu baax fàtte ko boo ko fàttewu da nga fay nekk di ko ñaax di ko ñaax ba far ma jëf ja màbb mu ne waaye tamit foo nekkate loolu la nit defate ci lu bon fàtte ko boo dul fàtte booy boo dul fàtte lu bon rek da ngay soxor moo ma defal nangam ngay ko xam nga juróom-ñett yi nii wax dëgg yàlla yonentu yàlla luqum amaana luqumaanul hakim du yonentu sax waaye nit suñ mbokkam nit ku ñu la di ku baax mu ne liggéeyal naa ñeenti junne yonantu ñoom ñeenti junne yonantu yëpp ñoo ma jox kàddu yi te kenn yë yëgantewut ak sa moroom kon nga xam ne kàddu yooyu seer na kàddu yooyu ku ko bàyyi xel lu muy gàtt gàtt man nga cee tabax sa àdduna mën nga cee tabax sa àllaaxira kuy def booy julli wattu sa xol bi ba iblis lu ci am accès kuy def loo defal nit ci lu baax fàtte ko lu la nit def ci lu bon nga fàtte ko boole koog di fàttaliku yàlla fàttaliku dee sax laa xiraa taxaw na taxaw na kuy def tamit tabaarakallaahu boo toogee ci mbooloo téye sa làmmeñ boo nekkee ci néegam jàmbur wattu sa bët yi nit ku am personnalité ngay doon ko xam ne kenn mënta yàq di sa àdduna fu la nit fiir tamit bëgg laa mbaal nga mucc mu jeex ndax nit ñëpp problème yi ñu am yëpp lañ wax rek lañ wax moo ëpp moo tax ñaar sax boo gis ñuy dankante waaj a kur fañ ko bala nga wax mu ne xanaa déggoo li ma wax foo fekk di déggoon li ma wax mooy jiitu maanaam wax-wax yi mooy moo moo gën a bëri ci ci yi waaw ñii ñëpp li leen yóbboo musiba yi wax rek lay doon wax rek moo tax wax su fekkoon ne nii xaalis la noppi di jamaa su fekkee wax wurus la noppi di jamaa noppi kenn du ko def réccu ko noppi kenn du ko def di surax ñi surax ñépp tarxiis waxkat yi la rawatina na buñ demee ba nga xam ne nag mbàndam wax dafa hubbeeku yàq wax xew defar wax xew kola coupé xew évancé dugal dugalante ay wax xew man ngaa wax ju bari ñu jël ci benn kii rek benn phrase rek dindi ko ci rek lépp yàqu yàq yàq yàq wax moo xew te loolu boo ko defoon ci alquran sax da nga yàq lu bari booy na fooy ne lil musallin rek xem ca xurba ca safara ñeel na ñay julli rek xem ca kon gaa yi bàyyi julli di yokku ca la ca tegu yàlla waxul loolu rek di loolu nag moom la gaa yi def nag dañuy seet leen li leen ci neex rek ñu publier ko bàyyi la ca kanamam ak bàyyi la ci gannaawam loolu lépp baaxul kon nag wax na safara ci iblis ma ngay dugal ñu ma ngi ñuy dugal aljana moo tax mu ne wa uddu xila tàbbaleef na lësi na ñi nga xam ne amanoo gëm nañ waa amiloo ñuy jëf saalihaati farataaki naafila yi fu mu leen dugal jannaatin ay tool tajiri yooyu dana daw min ti ca ronam al anhaaru dex yay ñeent waaye ca suratu muhammad la koy firee ca saaru xaamim gu njëkk ga xaalidina maanaam ca xisibu xaamim gu njëkk ga xaalidina te seen ak fi fiyaa ci aljana bi is rab ismi rabbihim ci ndigal seen borom tax taxiyatuhum seen ak nuyoo fiyaa ci aljana salaamun mooy baatam salaam mooy yàlla na jàmm nekk seen kaw mu ne boo liggéey nag ña daan def lu baax di wax lu baax di jëf lu baax ba dee yàlla nañ ca bokk dugal ñu aljana pisin yay daw bii nekk meew bii nekk lem bii nekk sàngara bii nekk ndox du soppeeku du xeeñ soo bëggee xewlu rek xewlu boo ko defee nag ci loolu la ñu ne boo déggee arab toujours alquran buy wax ak araab yi bari lu muy wax janaat tajri min tahtiha néew na xisib booy jàng wala saata doo ko ca fekk araab yi dañoo bëgg ndox dañoo bëgg ndox maanaam dund fu am ndox moo leen gënal lu ne moo tax ñi ci amul ndox sax ñu ngi créer di wut ndox di wut piscine pour am ndox rek loolu lépp moo tax nit ñi daal yàllaa leen nattu ba dund fu am ndox yàllaa ko mooñaaleeg nit moo tax booy jaay ay kër ay parcelle rawatina yu nekk ci pegg géej gi day cher lool te te gaaw a jeex lool dund ci ndox dafa neex waaye dund fi ci biir ndox nag kenn mënu ko fa ndox ma ne kenn mënu faa dund waaye dund nag ànd ak ndox mi brise bi di la upp loolu araab yi dañ koo bëggoon moo tax yàlla fu mu ko waxee ne sama aljaana ji ma leen denceel bu ngeen defee lu baax loola am na fa pour bëgg ñuy wax la bu ñu fa demee nag salaamun rek aljaana moom salaamun rek jàmm rek dee maanaam euh, dootu leen feebar dootu leen tële dootu leen ñàkkati dépense amul sax joxe dépense dootu leen ñàkk dootu leen sonn dootu leen amati naqar dootu leen déggatu leen naqar dootu leen gisatu lu naqar yi lépp xéewal rek la yépp salaamun léegi nag mu ngi léeb léeb wu sew di nirale gëm yàlla ak garabu tàndarma di nirale weddi yàlla ak garabu xettar léebu ama am solo la xam nga garab fokk mu am ren balaa tudd garab fokk mu am peer balaa tudd garab fokk mu am ay bànqaas gëm yàlla tamit balaa tudd gëm yàlla fokk mu am pas-pas pas-pas bu wér pas-pas ba mooy ren ya boo garab gum doon boo diddee ren ya garab ga dee nit ku nekk jëfam lu mu rëy rëy bu pas-pas ba yàqoo jëf ja yàqu mu nirale reen ya ak pas-pas ba garab foog mu am peer peer ba mu nirale ko gëm yàlla foog mu am wax wax ja mooy baatab laa ilaha illa allaahu muhammadu rasulullahi salaa sallam moo taxaw taxawaayu peer gëm yàlla euh, maanaam euh, euh, garab foog mu am bànqaas gëm yàlla tamit gannaaw bu amee pas-pas am am wax foog mu am jëf jëf ja mooy bànqaas yi law jëm fu nekk ak jëm ci kaw ndax jëf ju baax day yëkkati ko jëm ca kaw wala amalu saalih yarfa'u moo tax mu nirale bànqaas ya ak jëf ja waaye jëf tamit boo ko defee muy lu baax foog mu am résultant résultat bi la yàlla faye muy lu baax moo tamit garab bu amee ren am am peer am am am bànqaas faw mu am meññent meññant mooma nag mooy résultat ya mooy jëf ju baax ji muy nirale kon jëf ju maanaam pas-pas bu wér bu meññ jëf jubaax ak wax jubaax ak garabu tàndarma kon nga yëg ne garabu tàndarma am na solo ku ko amutoon na nga ko wuti jéem ko def sa kër tàndarma lu baax la waaye ñun tey suñ suuf yi li ko yàq yëpp garabu acacia moo tax doo fekk fenn yàlla yi sadd lépp garabu acacia mooy yàq suuf la man yàq suuf rek waaye tàndarma ak a xam solo dafa niroog nit ci yéex a màgg yeneen garab yëpp man ngaa jëmbat léegi mu màgg léegi balaa at sax mu nekk mag waaye tàndarma boo ko jëmbatee bala ngaa fekkee meññeent ma foog nga gudd fan mën naa dem juróom-ñaari at jëm kaw nit tamit nekkul luy juddu léegi rek man léegi yeneen yeneen mala yi yeneen xayawaan yi yu dul insaan da ngay juddu léegi commencé dox léegi nga ko gis ci xaj yi di ko gis ci bëy yi di ko gis ci xar yi di ko gis ci nag yi di ko gis ci gëlëm yi mais doomu aadama étape par étape ñaareel bi du tàndarma dafa niru doomu aadama tàndarma mooy garab goo xam ne boo daggee bopp ba rek mu dee doomu aadama tamit boo daggee bopp ba mu dee yeneen garab yi boo daggee bopp ba day jebbi hat waaye tàndarma moom boo daggee bopp ba rek mu mujj dee tàndarma dafa niru doomu aadama tàndarma foo ko fekk mi ngi ci activité bu nekk bu benn muy màgg walla mu dem ba sëq wala mu commencé tontor commencé def pell commencé euh, euh, xaay mu ñor nga witt mu commencé waat ñëwaat doomu aadama foo ko fekk mu ngi ci activité moom daal bu doxut ma ngay toog bu toogul ma ngay wax bu waxul ma ngay tëdd bu tëddul maanaam ma nga ma ma ma ma nga jaaxaan moom daal foo ko fekk doomu aadama ngi ci activité tom tàndarma nag fu mu nekk niroog doomu aadama ci nekk ci ay activité moo tax yàlla ba muy la gëm yàlla mu nirale ko tàndarma moom lay wax si nii wax joo xam solo la moo tax mu ne alam tara xanaa yéggul sa xam kay fa dara ba naka la saddee laahu yàlla masalan lépp léeb waay lan mu ne kalimatan kaddu tayibatan ngay aji teey kalimatan tayiba mooy la ilaha illallah ka sajaratin fa mel ni ki garab garab ak tàndarma tayibatin ngay aji teey garab goo xam ne asluha cosaan la saabitun aji saxla mooy na aji renu la mi ngi ci namm loolu wa faroa banqaas ya ña ngay yëkkatiku fi samaay ci asamaan moom tamit tuuti ma ngay joxe ukkuloha meññatam wa kulla hiinin bépp xat kulla hiinin bépp juróom benn weer kulla hiinin bépp jamono ma ngi koy joxe bi isni rabbiha ci ndigalal boromam wa yadribu dana sadd laahu yàlla amsaala léeb yi li naa si ñeel nit ñi laallahum mbastale ñoom yatazakkaruuna ñi man a waaru kon gis nga nérele na gëm yàlla ak garab ak tàndarma garab ak tàndarma xet gi neex na garab ak tàndarma ker gi neex na garab ak tàndarma meññant ya neex na naan waaw boo nekkee ci place boo xam ne nag boo bëggee lekk lekk soo bëggee kerlu kerlu soo bëggee xet gu neex am xet gu neex loolu dafay créer environment bu neex environnement bu baax bu baax nag fu mu nekk rek nit ñi dañuy bëri toog nii kon dafa bëgg a wax ne kàddu gu baax mën naa créer environment bu baax boo nekkee ci place boo xam lu baax rek ngay wax foo tollu yaa ngi wax luy yokk sa gëm yàlla sa place du wéet sa place du wéet mukk ñoo fi gis seen place yi xumb tabaarakallaahu te xumbee lu yàlla bëgg kàddu yu baax a fa ne jotaayu daara yi nga xamee tamit kàddu yu baax rek a fay jolli teg rek lan leen basan yi indi téere yi commencé di joxe darsu ku joxe téere nga jàngalewaat day gën di xumb rek ku dem rek sa morom ñëw di gën di dem rek kon kàddu gu baax dafay créer environnement bu baax waaye gis nga bu defaatee lépp mu wan ne kàddu gu bon dafay yàq environnement boo ka boo nekkee ci place boo xam ne garab goo xam ne xamul ker xamul xet xamul meññant ku fa ñëw tey boo léegi doo fa ñëwaat mooy garab ak xettar xettar moom xet ga neexut ker ga neexut meññant ma neexut mooy place boo xam ne boo fa demee kàddu yi bon rek ñoo fay jolli loolu rek la mel kon loolu ñu baxi ci xel bu baax mu ne tuuti ukulaha kulla hinin mooy dafa bëgg wax ne gëm yàlla boo ko xasee def ba pas-pas bi baax wax ji baax jëf ji baax résultant ba mu lay jural ci payoor heure bu nekk ngay witt rek ma tamit jëmbët ko ba mu kas commencé am doom a jafe waaye bu xasee am doom rek jamono bi nekk rek mën nga caa jariñu mu nirale ko la waaye ku la xiinin xiin ci jamono yenantu bi saxaaba yi dañ cee wutee baat bi mos naa leen koo wax ci benn saxaabi bu fase woon jabaram ne ko demal nga dellu sa kër baay ba jamono idhabi ila daari abiki hatta xiin ba mu waxee loolu nag xelam dañ ne waaw man li ma wax dee garaaw na su fekkee fase la ban fase la war a taxawee mu sol dàllam dem ci sayduna aboubacar aboubacar ne ko fase la waaye daal fii ba ñeen fukki xat doo ko mën a jëlati ñeen fukki xat lay tekki xiin baatu lay tekki mu ne balaa booba ma màgget mbaa mu màgget ba duñ soxlaalante mu sol dàllam dem ci sayduna omar xomar ne ko abadan àllaaxira leerut ma mais fii ma doon ko mën a jëlati mu ne ko ak ni ngay tàng ndokk ba yaw rek xamuñu la sol daal dem ci Sayyidina Usmaan Usmaan ne ko déwén mais man ta nekk ren mu ne ko waaw góor yow de yow yaa yaa yaa gën a yombale ñaar ñi ma dem mu solaat daal dem ci imaam Aliyu te waa ji kat benn soxna laa amoon mu dem ci àlliw Aliyu ne ko bu fekkee yàkkamti nga ba hegg ci lool boo fi jógee ko suba gi jeexagut nga jëli ko su fekkee yàkkamti woo nga bàyyi ba ngoon rek moom daal mën nga ko jëlee ci bëccëg bi mbaa nga jëlee ko ci ngoon gi mu ne ko waaw góor yow de saxaaba yëpp yaa ci dàq jàng yow kay li yonantu bi ne ana ana madinatul ilmi wa aliyun baabuha dëgg piir la su ma fi bàyyi ko jëli sama soxna si waa ji nag toog na xelam nag daal xaw a jaxasoo mu ne ñeent ñii di ñeenti saxaabaay yonantu bi yim gën a hóolu nga xam ne bu fa nekkatu ñoom lañ yaakaar ñoo koy hóotu xuutee nañ ci menn masala bala maa sañ a def dara danaa dem ba ci yonantu bi kalaame leen sallallahu alayhi wa sallam mu dem ci yonantu bi ne ko ñeent ñi nga njëkk ñi nga gën a xoolu xuutee nañ ci menn masala wax ko fi mu jaar ci lii yonantu bi ne ko leen bañ ñëw bala ma laa tontu mu xoo Aboubacar xoo Seydina Omar Seydina Ousmane Seydina Aliou bañ toogee mu ne ko Aboubacar loo ko wax mu ne dafa ma ne dafa fase jabaram ne ko na dellu kër baayam ba jamono ba ma jéexee xiin laa dajeeg xiin gi ma njëkk a ci alquran ñeen fukk lay tekki moo tax ma ne ko ñeen fukki at fan la mu ne alquran wax ne alal insaan xiinun min a dëhri xiinun jooju ñeen fukk lay tekki moo tax mu ne ko ñeen fukki at mu ne ko wax nga dëgg mu ne ko xomar nag loo ko wax mu ne ko abadan munu koo jëlati foo ko teg mu ne ko alquran alquran a wax ne tamattaxu ila xiinin ay ila abadin ila ila abadin lay tekki mu ne ko Ousmane loo ko wax mu ne ko déwén foo ko teg mu ne ko ci alquran fu ko alquran wax mu ne tuuti ukulaha kulla xiinin ay kulla sanatin xat mu jot rek muy tàndarma ji mu ne ko bu yàkkamtee jëli ko léegi comme suba gi jeexagut maa mu bàyyi ba ngoon foo ko teg mu ne ko alquran fa subhanallahi xiina tumsuuna wa xiina tusbihuuna ay waxta duxoolikum fi saba wa waxta duxoolikum fi lmasa keroog la yonent bi xool leen xool waa ji xool saxaba yi ñeent ña ne ko asxaabi kan nujuumi bi ay ayhi miqtadaytu daytu sama saxaba yi ay biddiw lañ koo ci jug yow koy roy nag mu ne ko xalliw su ma fi jóge ko su ma fiy jógee ko jëli sama jabar ji kon nga xam ne baatu xiin lu sakkan la kon baatu xiin dafa sakkan bul gisatu xiin rek bul gisatu xiin rek ne léegi la bul gisatu xiin ne déwén la kon sans départ la ca waaja namu rek maam xalifa xiinim ji mooy xiinu àlliwu la namu moom la wax ne fatu ilayya bi amwalin wa anfusikum li kay tafuusu bi naylil fathi fil xiini fil xiini yu ay fil xiini léegi léegi <laughs> kon foofu xiinu jooju xiin yi léegi la ci nam kon bul gisati xiin rek foo ne maanaam léegi la ça dépend ca contexte bi ko waa ji waxee kon wa udxila moo tax mu ne alam tara xanaa xéegul sa xam kay fa dara ba naka la saddee laahu yàlla masalan léeb kalimatan kaddu tayibatan gu teey ka sajaratin moo garab ak tàndarma tayibatin gu teey ñoo xem asluha garab ak tàndarma goo xam ne kosaan la saabitun aji sax am ren waa wa faruha banqaasam ya fi samaa yi ñu ngi law ci asamaan tuuti di joxe ukulaha meññatam ma ku la xiinin bépp xat bi isni rabbiha ci ndigalal boromam wa yadribu dana sadd saddlaahu yàlla lamsaala léeb yi li naa si ñeel nit ñi la laallahum mbastale ñoom yatazakkaru nañu mën a waaru bana loola mi ngi wax nag pas-pas bu bon kàddu gu bon ni ma nee yàq pénc ni ma nee yàq réew kàddu gu bon ni ma nee yàq famille yaay fekk famille bu teq taqaloo lu mat fanweeri xat genn kàddu gu ñaaw rek wàcc ca famille ba rek tas ko kenn bëggatu gis mbokkam te genn kàddu rek la benn kàddu te pourtant lu jiitu kàddu yooya lu ëpp fanweeri xat ñi ngi ñi ngi dem laantee dikkalantee rafetante benn kàddu ñëw yàqu ko kàddu moo mën a fekk tey nit ko xam carrière juróom benn fukki at carrière am yëpp zéro faute benn seconde kàddu rek ñëw raase soixante yi mu amoon soixante années yi amoon yëpp ci carrière moo tax ka moo tax kàddu lu jar a bàyyi xel la bala nga koo yëkkati war nga koo natt xelaat ko fi mu bàyyeekoo fi mu jëm seet jamono ja seet waxtu wa seet la lam laaj lépp bala nga koo wax nga wodd ko nëm gën a rafetee waaye bu woddoo boo ko boo ko rafleelee ba mu génn nga bëgg koo woddaat ci lay gën a ñaaw nga rafleel kàddu gi ba mu génn yàqu lu bari nga ne dama ko bëgg non ba ma koy wax jubluwuma ci woon nii lii laa ko jublu woon kenn mënu ci dara xodd ko ni yàlla xoddee kàddoom rek wallahu akhrajakum bu min butuuni ummuhaatikum waxut min furuuji ummuhaatikum da koo xoddu waxut min furuuji ummuhaatikum waaye min butuuni ummuhaatikum dafa ko xoddu ba pare door koo génne kàddu gu ñu xoddu am solo waaye ñàkk ñàkk yar ñàkk teggiin man nu ma ko sentir laa koy waxee lu baaxut kenn du ko def kàddu gu bon la yàlla lay léeb nii mu ne de ko garab xettar xam nga xettar dafa weex tal dafa weex xat xam naa ñu bari xam nañ ko te boo ko seetee amul ren xam naa ruujam xettar moom moo fi gën a yomb dem leen ngeen ruujali ma sama toolu xettar ba jërul xendu moom xamul ren da ngay ñëw rek maanaam <laughs> dégaase lépp ci lu gaaw a gaaw kon dafa yomb amul ren amul bànqaas amul dara ñëw dajale mu dem rek moom lay wax si ni ci kàddu gu bon muy pas-pas bu bon moo tax mu ne wa mathalu kalimatin melow kàddu xabiisatin gu bon ka sajaratin fa mel ni ki garab garab ak xettar xabiisatin ngay aji bon ujjutu sat boo xam ne gajjeef na ko min fawqil ardi ci kaw suuf maa lahaa déet di ko ñeexal min xaraarin ci benn sax amul ren yu sabitu dana saxal laahu yàlla si na nga xam ne amanoo gëm nañ bil xawli ci wax as saabiti bay aji sax fil xayaati dund gi dunyaa gu jege gi wa fil axirati ak ca àllaaxira wa yudlu dana sànk laahu ya zaalimina tooñkat yi wa yafal dana def laahu yàlla maa yasaawu la ko soob kon kàddu gu bon moo moo garab a xettara moo lawtanu xettar amul saxuwaay amul dara ku yaakaar gàncaxu xettar doo lekk kon kuy jëf-jëf ju bon kuy jëf-jëf ju baax ci àdduna te yàlla dogal amoo pas-pas bu baax boo lëggee doo xam loo dundee àllaaxira kon loolu lañ ciy bàyyi xel pas-pas ci la yàlla di fay ak xam solo sa pas-pas bu xasee leer sa jëf lum tuuti tuuti ci lu baax sa jëf lum bëri bëri ci lu bon même boo duggee safara doo fa sax ah yàlla mi nekkam gi ko xas saxal mënoo sax safara mukk waaye yàlla gi yàlla mi wétaayam ga kartanam gi meloom wa ku ko xas weddi loolu mën a def ci lu baax boo lëggee da ngay sax safara ku weddi lu sax dañ koy mbugal mbugal mu sax ku saxal lu sax mënta saxati safara waaye aaya ji tegu ci sabitulaahu lazina amano mi ngi wàcc ci sayduna Omar lu ko tax a wàcc keroog ba Ibrahima génnee àdduna di doomi yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xaleel bu ndaw moom rek moo bokk yaay ci doomi yonentu bi Maariyatu Xibtiya mooy yaayam benn jéebéer la bu mu jëlee woon Égypte buuru mu Muqawqis moo ko ko mayoon ba mu ñëwee mu am ak moom doom ju ñu tuddee Ibrahima doom ji dem ba xam fukki weer ak juróom ñaar génn àdduna keroog ba mu génnee àdduna yonent bi jooy na jooy yu metti saxaaba yi ne ko yow mi ñuy roy boo jooyee ñun nu ñu war a def mu ne bët de mën naa jooy ndax la koy taxa jooy bi jëg yërmandi la ci xol waaye làmmeñu moom du wax lu dul lu yàlla gërëm mu jël doom ja sang ko sang jullee denc ko bañ ko dencee afa saxaaba yi saxaaba yi di di tasaaroo mu koy sax ne ko hey yow Ibrahima sama doom bu la malaaka yi ñëwalee du leen laaj kuy sa borom ne leen yàlla kuy sa yonantu neel sayduna muhammad fuy luy sa téere neel alquran fuy sa qibla neel kaabatal musharrafa ba mu ko waxee rek Omar jooy jooy yu métti ne a yow yonantu bi sallallahu alayhi wa kii di sa doom di Ibrahima jénn àdduna mësooragul yàlla sax toggul ko jëf xam baay ju day ni yow xam ilimaan ju day ni yow nga jullee ko sang ko jébbal ko boromam di ko sax waaw waaw kon naka xomar moom bu demee ba dee te xamul baay ju mel ni yow naka xomar bu demee ba dee xamul ilimaan ju mel ni yow ju ko jullee ndax xam naa ne man yaa may jiitu su ma dee doo ma jullee naka naka xomar mu génn àdduna amul ku ko sax baat bi jooy jooy yu metti ah mu jigéen nag mu laaj yonantu bi bi jooy ne ko waaw yonantu dama lay laaj ndax bu ñu yàlla dekkalee ci suñ biir bàmmeel fekk yonantu bi da nga waaw boo gisee ma koy sax nit bu dee bañ denc ko ci biir bàmmeelam ña ko suuloon balaa ñoo tasaaroo seen jëngatu dàll yi sax dana ko dégg bu ko defee nag malaaka yi danañ ko dekki toogal ko laaj ko kuy sa borom kuy sa yonantu fuy sa xibla luy sa téere lii faw ñu laaj ko si la Sidna Omar amee occasion ne ko waaw dama lay laaj bu ñu dekkelee bañ ñuy laaj ndax dana fekk ñi xam xel ànd suñ xel comme tey nu ñu àndee suñ xel nii yonent bi ne ko waaw waaw mu ne ko kon baax na danaa ci mën a génn kon baax na danaa ci mën a génn Omar ku tàng la yàlla dogal mu génn àdduna ñi denc ko ci pegg yonent bi yéen ngi dem Màkka dem Madina gis ngeen ko sallallahu alayhi wa sallam mu dend ak Sayyiduna Abubakar ñi denc ko denc ko ba suul rek ba ñuy tasaaroo rek Seyduna Aliyu gestu di ree mu dégg kàddu gu bàyyi ko ci Omar Seyduna Omar ne ko eh imaam Aliyu demal nga yar nit ñi man malaaka yi maa ngi leen yar mu ne ko noo leen yaree mu ne damaa ñëw ne dereet rek xet si rek ñoom tamit ñu ne dereet ak seeni ñàngaay fekk yonent bi nee na ma ñooñu sax ma lay wax bu ñu lay ñëwal seen bët ya moo gën a leer jant bi gën koo rëy jant bi ni mu rëyee jant bi ëpp suuf si seen bët yi moo moo ëpp jant bi mu ne ma ne deree rek ñu ne ñëwaat seen ak ñàngaay bi ba ñëwee rek Seydou Seydina Omar ne waa yéen a soof ak seen ñàngaay bii yéen yéen a ñàkk fayda am gan goo xam ne ma nga ñëw su meegut dàllam yi sax ngeen ne dereet rawatina muy gan goo xam ne du ñibbeeti mukk du ngeen def nànk malaaka yi ne yelees ba ma bala ma daane nag nii ngeen ñëwalee ma bu leen ko ti benn ku bokk ci xeetu Seydina Muhammad loolu la leen ñaan ndeke Imaam Aliou dégg na ko Omar ne ko demal nga yar nit ñi malaaka yi moom yar naa leen kon kooku <laughs> moom yàlla dimbale na ko <laughs> kooku moom mooy yu sabitu laahu lisina amuna bil qawli saabiti kon képp ku nekkoon ci àdduna bi di wax baatab laa ilaha illallah qawlu saabit ji mooy laa ilaha illallah rek ku ko doon wax fii bis boo demee bay dee yàlla dana la yenkiwal nga mujj koo wax dee dem xal jana malaaka yi nag li ñuy mën a laaj duñu laaj ku dee weeru koor bépp jullit bu dee weeru koor am nga laissez-passer kenn du la laaj dara ku dee guddeeg ajjuma mooy guddeeg alxames ba seddi ajjuma kenn du la laaj dara ku dee bëccëgu bëccëgu bëccëgu aljuma kenn du la laaj dara ku dee guddeeg nisfu shaaban kenn du la laaj dara rawatina ku dee laylatul qadri kenn du la laaj dara waaye waaye yàlla ñu ko yàlla defal xam naa su ma ñu su ma ne yàlla ñu ko yàlla defal dana bari ñu ne waaye bu mu doon bii nag <laughs> waaye daal yàlla nañu ko yàlla defal kon yu sabitu laahu lazina amanu bil qawli saabiti moo ko taxa a wàcc te gis nga nit ku nekk lam taamu rek ca lay dee ruuxul bayaan day nekk nettali mu ne benn waay dafa tëdd ci biir nelawam rek yàlla jël roxoom dekkil ko bam ko dekkilee moom xamutoon na set dee na mu jug rek ne an sama sat la ga pour bu bëgg dem ca wanag wa waaye dafa jug rek tudd yàlla bëgg a jël satala ga rek dem sa wanag wa malaaka yi ne ko foo jëm ni mun ne ko damaa bëgg dem ca wanag wa bu ma demee mën a jàpp pour julli ñu ne ko ah yow dee nga bañ dekkil la julli jeex na demal nga nelaw nelaw yi séet sa teraanga yow sa teraanga rek nga ci teraanga sa yëpp jeex na kon ndeke li nga taamu woon daan ko def rek bu ëllëgee tamit ci loola ngay dee soo ca deexee tamit ci lañ lay dekkil kon lu mu taamu rek koo xamee da ngaa taamu bala ngaa tëdd léemu ñaan yi yonent bi wax ci ay afkaar boo yeewoo la ngay njëkk a def tudd yàlla sant ko dëgmal wanag wa ba pare jàpp boo ca bàyyeekoo julli say rakkaa soo ëllëgee tamit noonu rek ngay deexee boo ëllëgee tamit noonu rek ngay dekkee yàlla nañ ko yàlla defal yusabbitu laahu llaziina aamanu bil qawli saabiti fil hayaati dunya wa fil aaxira bana loola mi ngi wax ak waa Makka yàlla defal leen xéewal ñi remplacé xéewal nga weddi ne alam tara xanaa xéegul sa xam ila a jëm ci gaa yi nga xam ne baddaloo wattee nañ ni'matallaahi xéewal yàlla gi kufran ak weddi waa ahaloo wàccee nañ xaw moom seen nit ña daaral bawaari kër ak alkande fan la mu badal ca mu ne ma xal ja safara laa wax law naa ñu xaraf ko wa bi sa bon na xaraaru sax ga wa jaaloo def nañ lay ñeel yàlla andaadan ay ndend lii di loo ngir nañu sànq nit ña xam sa bii biili wala si woonu yàlla wu jubbi xul wax leen yow yonantu bi ne te mattaxoo na ngeen xéewlu ci lu leen neex ci bànneex fii ci àdduna fa inna masirakum naka seen ak mujj ila naari jëm na safara kon bu leen bu ngeen neex boo nekk ci rek képp ko yàlla jox xéewal nga remplacé ko weddi safara nga jëm su ko defee weddi nag ñaari xaaj la dafa am lu ñu tuddee kufrul mun'imi am lu ñu tuddee kufrul ni'mati kufrul mun'imi nag moo gën a garaaw kufrul mun'imi moom ku ko def génn nga ci diina ji kii xéewale di yàlla boo ko weddee génn nga ci diina ji kufrul ni'mati nag mënul la caa génnee mais mën nga caa jaaree ba yàqule ca yàlla jox lay xéewal jox la wér santee ko yàlla ci topp ko yàlla jox la xam jot xatalee ko ci topp ko yàlla jox la alal sante ko ci dimbalee nit ñi yàlla jox la xam-xam del gindi nit ñi kooku mooy kufru kufru ne maanaam mooy sukkur ala ni'matillah loolu xam na solo waaye safaan ba nag mooy kufru kufru ni'mati te nag yàlla summa la tus'alunna yawma idin ani naim kon xéewal yàlla yi la ci yàlla bëgg nañ koy def waaye buñ ko baxee rek mën nañoo yàqal lu bari qul waxal li ñeel sama jaamil si nga xam ne amanoo gëm nañ wax leen ne yuqiimoo nañ taxawal ay lu yuqiimoo nañ taxawal salaata julli wa yunfiqoo nañ dundale mimmaa rasaqnaahum lañ leen war wërsëgal siran ci lu nëbbu waxaleente ak ci lu feeñ min qabli an yaatee njëkk bay dikk yow mun bis boo xamee laay baaxoon déet ak njaay fii dee xew ca bis ba wala xilal tu yaakee nag xarit yàlla dafa wax ne rek waxal sama xarit yi ne dërëm yi ma jox leen nañ ko gaaw jaay balaa lambu nañ ko gaaw def ko ci li yàlla bëgg balaa lambu xaalis bi la yàlla jox boo xasee lambu na boo xasee taxaw bis penc ci lambu na dootul jariñati dara ndax foofa yawma laa yanfau maalun wala banuun illa man ata allaha bi qalbin salim moo tax kon ku yàlla joxati gaawal la ca yàlla bëgg nga def ko balaa dërëm yaa lamb boo xasee dee ak moom rek dërëm ya lamb na ndax yawmun laa bay'un fihi wala xilaalun mu teg ca ne allahu yàlla fii mooy buur ba nga xam ne xalaqa bind na samaawaati juróom-ñaari asamaan yi wal arda ak juróom-ñaari suuf yi wa ansala wàcce na mi mina samaay ci asamaan maa an taw fa axraja mu génnee bii ci sababu taw boobu mina samaay ci xeeti meññant yi risqan mu di wërsëg làkkum ñaal leen wa saxara moo tàggat làkkum ñaal leen fulka gaal yi li tajri ngir nañ daw fil baxri ci géej gi bi am di ci ndigalal yàlla wa saxara moo tàggat làkkum ñaal an anhaara dex yi wa saxara moo tàggat làkkum ñaal sam sa jant bi wal xamara weer wi daa i bay ni ñu nekk yoo xam ne dañ fay dappetu wa saxara moo tàggat làkkum ñaal lay la guddi gi wa nahaara ak bi wa aateekum jox na leen min kulli maa saaltumu ci lépp la ngeen ko doon laaj wa in taxuddoo su ngeen bëggee lim ni'matallahi xéwale yàlla yi laa tuxsuha mun leen koo gaw innal insaana naka xeetu doomu aadama la zalumun tooñaa kon la kaffaarun weddihaa kon la kon yàlla ñuy ñaax ci lim ñu defal moo ñu bindal asamaan muy juróom-ñaar suuf di juróom-ñaar diggante fii suuf ak asamaan doxab juróomi téeméeri xat la asamaan su ne ak moromam doxab juróomi téeméeri xat la matière yaa wuute ak couleur ba moo tax foo ko fekk mu koy jama jama mu anna saalim suuf nag matière bi yëpp benn la couleur bi yëpp benn la moo tax foo ko fekk rek da koy da koy mufratal du ko yéegal mukk ci jama musakkar salim muy arad diinaak arad duunaak yooyu du ko ca yéegal moo wàccee ci ci niir yi taw arab dafa baaxoo lu ko féetee kaw rek samaaw la koy tuddee waaye taw bi bu doon bàyyi ko ci asamaan du mën a wàcc waaye nag lu la tiim rek même ba ci toiture bi tiim la sax samaaw rek la koy tuddee bu ko defee nag mu mu feeñal mu génnee ca taw ba sabab sababam ci suus ak gàncax waaye la ca wuutee gàncax yu wuutee ci couleur wuutee ki caf nga te menn ndox moo leen arrosé kooku yàlla rek ko su ko defee mu tàggatal ñu géej ni mu xoyofee ci ndox nga jël bato yi jël féeri yi jël gaal yi sëf ko ba mu diis teg ko ci kawam te labut suuxut te am ni suuf ni ndox xoyofee loolu yàlla rek ko man daw gi bato yi daw fii billaahi loolu miracle bu rëy rëy la moo tax gis nga ko yow mi sax boo mënoon ndox rek booy dugg ci géej gi rek mu ji mu mu mu mu ji suux yow nag ngi teg ci bato bi mu jël nangami ton yu dul jeex di tëmb ci kawam def juróom-benn weer ci kaw ak nit ñay dund di julli di nelaw billaahi yàllaay borom kartan boo duggee ci avion bi nga koy xam ci avion yi mais boo duggee ci bato bi boo duggee ci avion yi mu dem ba décoller diggante coog jaww ji léegi-léegi muy xotti ci biir niir yi dangay nga yëg ne maa na illa rahman yàlla rekk ko téye su ko defee tamit waaye suuf si taat bi tamit maanaam bato yi féeri yi gaal yi ci kaw géej gi tàggat yàlla rek la mu tàggatal leen jant bi yaa ngi nii weer wi tabaarakallaahu bu bii nëbboo rek bee feeñ tàggatal leen ba bëccëg kon daal lépp lu ngeen soxla woon ci xéewal moom yàlla jox na leen ko xéewale yàlla yee bëri ci mbindeefu yàlla yi ba kenn mënu koo gaw kenn mënu koo takk maa bëgg toog looy def nga ne xéewal yi ma yàlla defal laay lim ku ko man xéewal yàlla yi fa bëri wa in tauddu ni'matallaahi laa tuxsuha kon nag li ci war ci xéewal yi sant rek mun daan nañuy sant rek sant rek ndax xéewal dafa taxaw taxawaayu rabu xàll rabu xàll li ko mën a tax a nekk ci kër buum rek xéewal yàlla yi tamit li koy taxa a mën a sax sant rek ku baxi sant say xéewal wan la gannaaw nañuy sant ci lépp nañuy sant alhamdulilah ala ni'matil islam sant yàlla ala ni'matil quran sant yàlla ala mati sihati wér nañ sant yàlla ala nihmati salaamati sant yàlla ci xéewal ak am jàmm li am liberte kenn topp la dara lu ko gën a neex amut de lu ca nekk nag boo ko ñàkkee ngay door a xam safaanam fu mel ni yow mi wér xamoo li wér di jariñ boo demee ba feebar billaahi ci ngay door a xam li wér di jariñ yow mi nekk ci jàmm yoreeloo kenn benn dërëm ku la neex xoo ku la neex huyu ku la neex entrée wallahi bis boo demee ba xam ba xamel nit ñi boor commencé di daw sans sans interdit plainte ya bëri ci ngay door a xam ji li jàmm muy jariñ lépp leen lu ci nekk rek yàlla jox na ko ci xéewal lépp rek xéewalu doom lépp am doom yàlla xam na yonentu yu mu ko xeeñ ak yeneen ak yeneen kon xéewali yàlla yi kenn mënu koo lim yàlla nañu yàlla may ñi koy dékkoo sant hamdan yuwaafi ni'amahu wa yukaafi masidahu lu am solo la ci xéewalu yàlla yi yàlla nañu ko yàllay defal ci barkeeb sayduna muhammad yàlla na yàlla wàccee barkeeb alquran ci suñ kaw wàccee ko ci waajur yi wàccee ko ci mboolem ju fu ñu mën di nekk yàlla nañu yàlla def dëgg dëgg julit yàlla may ñu mujj gu rafet dëppale ñoo ngërmandeem yàlla na yàlla dëppale ak yërmandeem yàlla nañu yàlla dëppale ngërmandeem dëppale ñu ak yërmandeem ci barkeeb sayduna muhammad yàlla nañu yàlla nangul kàddu yi yàlla bu ci saytaane am cër yàlla bu ci bakkan am cër lépp yàlla na yàllay kese ci barkeeb sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam tey nag ñu am fi gan yu tedd tabaarakallaahu cheikh ahmed tidiane ñes di suñ doom di doomu papa ñes mu maam ba bàyyi laaji babacar tabaarakallaahu xale bii doon jàng moo ko jàngal jàng dem ba murtani jàng fa sàkku xam-xam di borom xam-xam mi ngi lagaroos tabaarakallaahu yore fa daara ko ñaanal yàlla ko yàlla dëgëral mu ànd ñoo bokk nekk foofa ñëw toog fii tey Babacar Dia di soppe di xarit moom moom xaw ma ko ko gën a bëgg tafsir bi moom moom weeru koor lu weeru koor yokk rajoom bi rek yoonam ci ku ko mere moom daal fu mu toll mi ngi ci mi ngi ci rek Omar Dramé mi ngi toog di doomu alaaji laayen atte Dramé fële ci Busra da ngeen leen dégg ni nit ñu baax xaaw laay saxaab yi ku ne dégg na leen moom tamit doomam la ñëw fii toog ñu ngi koy moom tamit ndeysaanam kenn mënu la wax ci tafsir bi ne ni mi nga bàyyi sancam ba ne ko daal comme tafsiru kii bi jot na daal moom man du ma ko demee fen lu dul foofa laay dem sëñ bi ne ko loolu kay may naa la ci ndigal waaye fu mel nii bët bu set maanaam ma ngay bàyyi ko gannaaw Tiwaawoon pël dugg ci oto yi karang-karang yi ba xeg si fii bu paree demaat loolu cofeel mënu koo paase yàlla nañu yàlla defal jàmm yàlla nañu yàlla defal sutura yàlla nañu yàlla xiir ci boppam jigéen ñi tamit ña nga ca gannaaw tardé wuñ yaayu Muhammad moom bët bu set rek mu ñëw bu paree rek moom mi ngi yónnee waxtaan yi Mouhamed fële ca Canada ndeysaan ndeysaan moom tamit di suñu soppee benn waxtaan du ko raw ñu ngi sant ñëpp tabaarakallaahu ñu ngi gërëm ñëpp Oustaz ki sekk moom tamit yore daara Alaaji Ousmane ñaan ñëpp rek ñu ngi fi yal yàlla defal ñëpp jàmm wasalaam